asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 27 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooreetu ko yëglekaay ba nag moom tey fa mu xëy génn fenn la maanaam Balla Gaye numéro 2 daal lanu xëy tey indil ci xëtam wu njëkk sampub laajam di laaj nag ndax Balla mii est-ce que remontada bi war na ko mën a def maanaam daal jaar fa mu jaaroon jëlaat li nga xam ne moo di couronne roi des arènes bi yóbbu ko géejo way muy ñaareel yoon ci carrière am sunu lamb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki wala mu samp boobu laaj di ko laaj mbokkam ma nga xam ne moom moom la bokkal géejo way muy Lac de Guiers numéro 2 moom soo bëggee dégg-dégg sunu làmb nee na moom daal fi mu nekk nii problème bi mu am ngir am adversaire yëg ne ba ca njëkk mooy maanaam mbooloo xam ne daal ñàkk na ko maanaam daal populaire moom ci wàllum làmb yëglikaay bi nee na Lac de Guiers numéro 2 da koo deful la ca des mooy Lac tamit mu ngay laaj ay kese yoo xam ne yu seer a seer la yëglikaay bi nee na daal lii bokk na ci li tax lag de Guiers numéro am problème ngir gis koo xam ne nii dana jàmmarloo ak moom bëre ak moom sunu làmb xëy ñëw tey sampal ñu boobu laaj keneen koo xa ne nii moom juróom-ñaari at a jàppal moom papa sow yoo xam ne nii daal ndam gisu ko ak ay bët sunu làmb xëy ñëw wax nu ko la ca des mooy nag jóge gëmu jóge faasit yëglikaay ba wax na ca waaye sunu làmb yemu ca ñëw na ci moom itam ak palmarèsam boo xam ne riis na ba yegg ca lool ndax su yëglikaay bi xamal nañu ndey papa sow am na 23 victoire papa sow am na la nga xam ne moo di huit défaites ci carrière waaye ndam daal fi mu nekk nii moom mooy loo xam ne nii lu ko te tëcc lay doon combat boo xam ne moom bu tëwoon tëcc ñëpp ca coow di ca wax waxi sunu làmb wala lu jële ci yëglikaay ba daal ki nga xam ne ni moom moo di guy gi daa mel ni joxe na accord pour tey mu war a nag jël avance ba koy boole ka nga xam ne moo di rëg-rëg ak ña nga xam ne ñoo di waa GFM yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki ñeneen ñoo xam ne ni moom am na kuy dox seenub combat muy ama neex bu tëngéej moo du anta bu Thiès promoteur ba nag moom maanaam bëgg tawane xar kanam ñu xàmme ko wala mu yëglu ñu koy xam moom daal la mu nar mooy jëf-jëfi ndew ruudu rek jaar ca suuf ba taxawal combat ba muy moo du ak ama koo xam ne moom am na combat muy nekku réel diggante ma ka nga xam ne moo di marle moo tax yëglikaay bi ñëw di ko dànkaafu di ko xamal ne day combat boobu mbaa mënta nekk ci moom la nga xam ne nii moom moo di poisson yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom wane na boppam ca la muy dox muy Ouzin production la mu bëgg daal moom nëbbu ko ne na fàng daal di génn ne na góor a soog la bëgg a boole ko ak doomu dàngu te du ca yem ka nga xam ne nii moom moo di jàppal caatu yoof ak Jackson tamit loolu la ca bëgg a boole maanaam Ouzin moom wax na la nga xam ne moom la bëgg ñaara ngi ñoom ci seen carrière ñuy njëkk ñuy bëri grand combat muy dab daan ak mbaytin senior komba ba daal taxaw na yëgle kay ba xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu am na ñoo xam ne moom nekkoon nañ fi di taxawal ay lam wala ñu nekk fi di ko def muy waa arène wala boog waa RDV jàppal Sidi Diagne tey gis nañ ko ca tuusu yëgle bi di suñu lamb muy wax ne daal arena tour bi moom dellu si bëgg nañu mu def ko yëgle kay ba xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu bu nu fa jógee dañuy dem Leewtoo point net lañ nu moom ca xalima ndey koy fay li am ba des léegi nag jóge na pikin ci école Bac Seras ba mu nekkoon fekki na Garga Mbossé ca dóor dóoraat kon daal ba bëggee dégg dëgg booy fay taxu na léegi dem na dóor dóoraat buñ fa jógee dañuy daw jubali fa nga xam ne moo di ca record kan fay fekk mooy duuba lees bàyyi Balla Gaye ak Sa Thiès lees moom la muy naqarlu wala la ko neexut mooy kay communication wu Lac de ba sañ wax nga kooka daal moo xëy bërki dem di dëkku Ama Baldé lees nag mbir mooma da koo naqari lool ndax daa jàpp ne ñii moom lamba xajul ci seen diggante te moom nag mooy seen kilifa keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi di record ñëw na ci moom ci ñetti bés yoo xam ne def na ko muy bés yoo xam ne déedéet su ko fàtte ci lamb Bombardier mi nga xam ne moo dëkk ca Mbour ba ca njëkk mooy 2002 diggante ak Mohamed Ndaw Tyson Tyson moo xam ne jamono jokko Bombardier di daan maanaam daal nit ñi mu ñu koo jege wala ku ko jege itam lan cay jële mooy say mbokk di jooy ndax defat ba mu lay daan waaye nag ba xamee ne jàmmaarloo nag Bombardier bomb da koo daan jàll dem aw yoonam ba tey moom Bombardier mooma yemu ca de ñaareelu bés boo xam ne waa làmb dootuñ ko fàtte wala waa réew mi mooy digganteem ak Balla Gaye numéro 2 ca la nekk nag roi des ñaari yoon moom Bombardier ñetteelu bés ba mooy digganteem ak Modou mi nga xam ne mooy roi des arènes fi mu nekk nii Bombardier kera bés booba itam dafa ñëw daan Modou loo daal di jàll waaye itam donte nàcc na yëglikaay bi ne terewul Bombardier daan na ka nga xam ne nii moom moo di Modou Lo dem aw yoonam leneen loo xam ne nii mu ngi ci record muy ka nga xam ne nii moo di Gaskel Jàmme lañ ñu xam ne daal ñàkk na la nga xam ne moo di way juram waaye jamono jooju nga xam ne ñu ngi ñu koy tàgg mel ni ki nag soxnaas Modou Lo moom nga xam ne moo di ñaareelam moom am na bébé bu góor yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko samedi la ko am yëglikaay bi di xëy ñëw xamal ñu lu mel ni ki noonu waaye ba tey bu nu continuer nag am na koo xam ne ni moom dafay jóge te yaakaar naa ne réew mi yëpp xam nañ ko rawatina taskate xibaar yi muy Babacar Touré ma nga xam ne moo taxawaloon rajo Sud FM wala groupe Sud Communication ci atum 1994 moo fi jóge bii kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko taxare ko aljana di ko jaale képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi wala ngay yëngutu ci mbirum presse mel ni ki yàgg maar jàppal kullu nafsin saa yi xatin mawtin yàllaa ko wax bu ñii di gane àddina moom ñee dañuy faatu waaye juddu da ngay dee loolu waxi suñu borom la kon mbir mi sunu borom dong la ndax mooy borom kun fa yàkkoon kon maar daal lépp looy jëf la ma mën a doon def ko te yàlla tax soo ko deful te yàlla tax yàq nga ko kon lu nuy def yàlla na yàlla tax te bu taxee yàlla na ko yàlla nangu. Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu ayen Babacar maa ngi lay la ziar naa la sa Adidas fay di la nuyu di la ziar tamit sa giri ah du giri la <laughs> sa giri mool na macha allah maa ngi lay bëggee di nuyu internet Leewtoo TV yëpp waa di wax ne fii nag Ousmane Gueye wala Ousmane Diop moo fi jaar quoi ak waa xam du mën a ñàkk àddina loo partagé wul baaxul euh, maa ngi war nañ si am de non yow am na lu ma lay préparé ah. yow kay muñal man naam sax suba nga jot ci bu soobee suñu borom incha allah ah. waaw dama félicité nag Paris waaw waaw waaw si seen championnat bi waaw waaw loolu day moom du info Paris jël na championnat France moom actuellement wala jël na fa coupe biir France moom mooy géej gi na ndox rek ndax ku fay football ku ne yaa teg ci kawam tànk actuellement Europe kay mooy sa problème. ah mu des ligue bi léegi rek ñaan rek dina baax. ligue bi ponkal yaa nga fa. <laughs> <laughs> <laughs> di ñëw nag suñu lamb si jàngatu arène bi mm-hmm. Babacar nag suñu lamb nag dafa xëy nag ne eh, ki nga xam ne mooy Babacar est-ce que ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 dina def remontada eh, si couronne bi parce que nee nañu comme nga ñëwoon na ko benn yoon perte ko est-ce bi yoon nag dina ko dem jëli waaw jëli gi de li ko koy may mooy ne ca la koy maye rek mooy di entraîner ami combat te defe naa ne mu ngi entraîner mu ngi am ay combat actuellement mu ngi ci combat digganteem ak Gris Bordeaux loolu nag bu dakkulee day ànd ak ay résultats ya mu ya muy xaar maanaam victoire bés xëy xan mën nañoo xaar mu nekkaat ko waaye lépp nag ci moom lay dépendre rek parce que lu la waay mën di wax moom làmb lañ lay wax rek walluk teen la ku ñëw ci pind ba ngay yem li la ciy dimbali daal mooy entraînement yu wóor ànd ak ñi nga war a àndal na ca la nga war a ne la ca des nag sunu borom a koy mottali. Mhm. waaw euh, journal bi mi ngi ñëw def benn euh, taxaw euh, seetlu nee ñu ki nga xam ne mooy Lac de Guiers mi ngi lan moo tax daal mu am problème pour trouver. Mhm. li nga xam ne moom mooy combat nee ñu mhm. dafa impopulaire. ay combat yu amul saful suukar saful yàpp daal moom lay bëree pare ay cachet cher na lool. waaw loolu daal loo ci mënti dégg mooy. <laughs> Ah, ah, impopulaire wala kase yu seer wala. combat yu neexul xam nga loolu pour man. est-ce que loolu mooy problème bi yaakaaruma ko parce que itam la de Guiers numéro yàgg naa bëri bés yu mag moo xam Demba Diop la moo xam Léopold Senghor la moo xam arène nationale la fépp fuy stade bu mag ñu di fa bëree làmb bëri na fa ak adversaire yu mag a mag a mag kon yaakaar naa mbër la ma nga xam ne nii ah ci làmb nag dafa fekk ne ndey kumba bu cër yëpp tolloon am ñu gedd seen cër mm. tey na Balla Gaye mel ak na Lac de Guiers mel ak na Eumeu Sène mel ak na Modou Lo mel ak na Siteu mel ak na keneen mel du nekkul ne noonu la Lac de Guiers 2 di mel moom par force parce que ku ne am na façon bu ñu la xamee am na nooy communiquer am na nooy doxale am na nooy bëree moom nag bu dee ci biir bëre bi la bu ñu ci ñëwee Lac de Guiers 2 làmbam da di moom da koy def da koy teg ci yoon maanaam tempo tempo li ñuy wax teg ci yoon neexul a bëri moo tax mu naqaree daan lool nag bokk na ci loo xam ne nii xëy na moo tax ñu bëri xëy na dañoo yaa dañuy bëgg tey exemple mën naa jël exemple ci Balla Gaye ni Balla Gaye di bëri ñoom ñaar bokkuñu façon bu ñuy bëri yaa dégg li Balla mën a def ci ay exploit ci jël rëy xëy na Lac du ko def mais li daan Balla Gaye numéro 2 daanul Lac de Guiers numéro 2 parce que bokkuñu façon bu ñuy bëree loolu ci mën a dégg nag yaakaaraan war na ko mën a am ndax wane la waral mën a tax mu am adversaire waaw. d'accord su jógee nag si ki nga xam ne mooy Lac de Guiers nañu dal nag si ki nga xam ne mooy Papa Sow nee ñu daal juróom-ñaari at euh, sans victoire face dàq nañ ko nee Papa Sow daal mi ngi mi ngi dem nag si combat boo xam ne nag combat bu xaw a métti lay doon par si le plan psychologique surtout. waaw gëj na am ndam waaw loolu tamit wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne lu metti la ci carrière sept ans ah loolu diis na mais itam. loo ci mën a dégg carrière am riche na par rapport ak li mu am ci ndam ak li defet xëy na nag dafa nekk que ni làmb moo sport sax a tëdde noonu des fois ne ci benn contre performance bu doy doy waar ndey kumba mais nag bu fekkente ne xam nga li koy indi nga jéem a liggéey ci loolu rek xëy na ah man na am nga rebondiraat tëbaat dem fa nga nekkaatoon tey jëm moom nag mbiram ah du man a oyof parce que li tax mooy dafa jóge ci gri bu mag muy Fass foo xam ne carrière am yëpp li ci yëpp fa la ko defee tey mu dem sanc lu bees loo xam ne nii am adversaire boo xam ne dafa jógewoon ci defet muy diggante ak Siteu moo tax nga xam ne daal Papa Sow li mu jëm moom ah du lu yomb yombul ci moom yombul ci Siteu waaye itam loo ci mën a dégg sport la rek lépp mën a ne. Mhm. waaw lépp mën a nekk boobu nag moo tax nee nañu ginnaaw ay jàmm diggante guy gi ak ñi nga xam ne mooy Sénégal entertainment nee ñu nag guy gi ginnaaw nag bi nga xam ne Malick kak euh, dox na si tànk jàmm nee ñu mhm. nag guy gi fas yéene na encaissé tey jii si lënd si avancé pour mën a bëree ki nga xam ne moom mooy Reug Reug Babacar. waaw loolu de dañ naan alhamdulilah rek ndax li ma la wax mooy que ni Sénégal moom ñun ñoo ko bokk xam nga li war a am mooy Euh, mën nañu nag waxante nii xuloo jaabal baay waaye defe naa mënuñu xasante ñu tamit bàyyante parce que li tax mooy ñoo bokk réew mi te réew mi ne nañu ko bokke loolu na yàlla dogale ñu ñu ñëpp ñu nekk ay mbokk yaa ngi dégg moo tax ba nga xam ne tey guy gi nekk na quelqu'un si làmb bi nga xam ne nii am na lu mu wane si biir làmb tey cir bi mu am ci làmb moom moo ko xeexal boppam ak ña ko encadré ba yegg ba indi ko fii mu nekk tey kon yaakaar naa itam ci biir bëre wala ci biir dox ko mbaam coow pour man sa waru fa am parce que li tax coow waru fa am mooy ndey kumba njënd ak njaay la rek lii lay jaay lii laa mën a fay jaruma jarut lii lii lay jar foofu waxtaan fa war a mën a am ba ba ngeen di trouver solution comme li am nii mais encore li am li may waxaan mooy que mbër dafa ragal mbër man Babacar ba bu baat dama koy faral du du ma ko faral di nangu xam nga lu tax parce que dama gëm ne mbër mu ne am nga encadrement encadrement boobu nag ñoom ñooy définir yow ni ngay bëree ci kase ak ci say adversaire hmm. waxoon na la ko fii ci Tapha booy Boy am na ñu doon wax dafa Tapha Tine est-ce que Boy Niang ragalu ko ma ne la non jàppuma loolu bis bu nga xamee ni war na koo jël est-ce que du ko jël mais loolu lépp day dépendre nag ci sa encadrement parce que mbër bu bëgg a def carrière bu réussir il faut nga am encadrement nekkul ne lu ñu la indi rek danga naan dañ ko da nga jël directement il faut nga xool ko ak ñoo ngi ko seqal mu laaj jël nga jël mm, Babacar combat bi tey nañu tey mu jot avance est-ce que tey coow na ko kon waaw non waxante ah, yeeg mooy li ma la wax rek c'est impossible jaru ko parce que ak lu mënta xew waaw waaw parce que xuloo moom dañ ne booy xuloo xuus nday kumba booy juboo da ngay tefes mm. wet ngay doxe yooyu nag nañ ko moytu man daal li ma xam mooy ñoo bokk réew mi nañuy rafetal xam nga te itam nit ki bu fekkee tey man ndey ku mënuma séq ak yow lu rafet ëllëg même bu ñu amee problème xuloo du noonu du la xalab mm. jote nañ nag jote nañu ñëpp nañ mën nañu xam tax ma yoo xam ne séqoon nañu mm-hmm. di mm. di mën yi loolu am na solo nee ñi nag na promoteur boo xam daa bëggul nag daal mi ngi si dox mi a ay nëbb sa tur daa xew wax na dëgg wala nañ ko ñëpp xam fa nga jëm doo yegg ah yàlla na ko am parce que ñaar ñooy itam bëggante nañ lool muy ama neex ak Modou Anta defe naa ko am seen combat itam da nga am combat bu neex a neex ama neex ku ko xam-xam na nga ni mos jàmbaar la Modou Anta moom waxaale wuñ ko moom balaa dóoru dóore waaw suñ jógee na suñu laan mi dem si Leewtoo point net foofu ni ñuy xamal ne ki nga xam ne mooy Boy Faye jógee nag bàcc Seras jël ngembam nag teg ko nag fi nga xam ne moom mooy dóor dóoraat Babacar ah waaw loolu am na solo jóge na tey écrit bàcc Seras dem na ca ñoom Garga Mbossé ah moom Boy fay loolu itam yaakaar naa ne ku ne libre nga ci waaye nag ku ne xam na ne moom foo waxee itam dégg ko micro nañ la bàcc Seras ni may bëree moo ko def ci man moo ma jàngal bëree kon defe naa loolu mënatu a fay dama fekk ne nag àddina day dox am ay évolution di nga nekk fen la waxoon sànq rek réew mi la ci ñun ñoo ko bokk te daaxat mhm. waaw suñ jógee nag Leewtoo point net dañ dem nag si record si xalima mooy record record nag si xalima Abou Nour mi ngi fa ki nga xam ne moom mooy Double si Papa Sa Thiès ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye moom daal mi ngi métti bu baax a baax li nga xam ne waa kër Lac de Guiers génn nañ di defee ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé waa lool daal day kumba li ñu si mën a wax mooy kañ rek moom mooy seen kilifa yaakaar naa ne tey ci li ñu xam parce que defe naa muy ama muy lag muy ñoom bàll ñëpp les ay seen kilifa tey defe naa xëy na bu kayora communication wu lag bu génnee dëkk ki nga xam ne moo di Ama ko defe naa kon ñoom nañu bàyyi xel ci ne ki leen ko a wax loolu neexu mooy wane kon ñoom ñooñu kuy xaar bëri ci diggante yaakaar naa booyee boo lalli parce que nga ko ne moom mooy que ni foofu làmb ñaari yoon roi des arènes moom nag mi ngi ñëw si carrière yoo xam ne victoire yoo xam ne victoire yi mag la mooy euh, digganteem Tyson ak Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Modou Lo moom loo moom la moom nag nee ñu ginnaaw ma ko nàccalee nag teewul ba majee bi nga xam ne ba majee mujj na jël ndam li <laughs> mais combat bu metti la woon Modou de moom yom na la <laughs> nàccal di nga loxo ba daa xor de moo raw sax kàddu gi loxo loxo baa xor ah. <laughs> Modou Lo mais Bombardier moomu ñu ñëw ci moom ak ñetti bésam yu rëy yooyu te xafar naa 2002 bi muy daan moom ndaw Tyson ndey Kumba Fall boobu Tyson daan ko jafe na ci la làmb de. tarap boobu Tyson moo tax nday kumba lu tëgg tas. <laughs> wallaay nday kumba lu tëgg tas. ana Yékini eh, waaw ana Yaxya Jóob Yékini ah Baboy ñëw def ah? ko noonu mu ko def bés boobu 2002 ñu ne déet ne waay mu ñëw digganteem ak Balla Gaye numéro 2 am ci loo xam ne nit xaaru kon ko maanaam roi des arènes ñaari yoon ci carrière am mm. ñaat ci Modou Lo combat bu tàngte metti mais terewul yóbbu na ndam la loolu moo lay wan ne Bombardier mbër la mi nga xam ne sportif de haut niveau la te itam ku ñu war roy la ci hygiène de ci wàllum wax nit ñëpp soxlaay wax mais rawatina mbër yi parce que li tax mooy atta ko dese ci lam wala attaque tuuti te tey bomb Bombardier du sumeeku ci géew nga gisaw yaramam ñu la ras na wala màggat wala nangam parce que loolu li koy indi mooy de entraîner mbër da ngay entraîner soo bëggee di ci ne parce que bàyyi woo yaa ko taamu comme sport del entraîner loolu mooy secret bi. la ca des nag bi nga entraîner ba yor sa doole sëriñ bi lay ñaanal sax ci lay gën a sawar ci yow. ne ndey kumba fa léew mi bu ñu la ñaanaloon tey ne demal nga daan Bombardier ci mbaa Balla Gaye dara wóor la si ah dina métti de xamoo lu ma toogaale seen ma nii rek mais xamoo lu ma toogaale Babacar man da ca làmb ja laay wax continuer <laughs> ni nga wax tamit ki nga xam ne mooy <laughs> euh, Gaskel Diamé euh, ki nga xam ni waajuram bu góor daf ko daf ko ñàkk tamit euh, nu fàttali tamit presse bi mi ngi si tiis ki nga xam ne mooy Babacar Touré président président ak fondateur ki nga xam ne mooy Sud Communication moom moom moo wàññeeku dem Babacar Gaskel ñu koy jaale way juróom boobu yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àljana ndax moom it champion la bu nekk si làmb ji défendre couleur réew mi di international Gaskel Diamé ñu koy jaalewaat way juróom bu góor na ko yàlla génération bi yëpp rawatina tamit presse Sénégal bi yëpp ñu ngi leen koy jaal di ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana ndax Babacar Touré moom ah bay na waaram ci réew mi wax dëgg yàlla ndax defe naa loolu ñëpp teg nañ ci seen loxo Sud FM su ma jumul 94 lañ ko taxawal ba tey mu ngi ci 26 ans kon yaakaar naa ne te itam bokk na ci rajo yu nga xam ne day ko ma li may wax sénégalais yi xam nañ ko bu baax a am na fa moom ci xibaar yi rek la ñuy départ ca la ñuy yem muy loo xam ne nag lu ñu leen jàngal la lu ñu leen yare la te loolu Babacar Touré ak ña ko wurun ay ñoom Ablaye Ndiaga Sylla ay Abdoulatif Coulibaly ay Serif El Wali Sey ñoo ñëpp dañ leen fa daan dégg ñoo ñoo def liggéey boobu foofu kon Babacar yàlla na ko yàlla xare aljana ma déggaat ci moom loo xam ne nii mooy si FM du lu kenn di doon du doomam du keneen sénégalais yi la ko may te ba mu koy wax boobu ci dundam la ne ci jàmmam kon yaakaar naa kon moom contribuer na ci développement réewam encadré na ay nit ba tey nekk ay quelque ca fa ñu ne muy koo xam ne daal nday ku ma fal loolu la ñuy wax daal balaa ngay laaj yow lu la réew miy jox yow xoolal looy jox réew mi ba pare kon Babacar Touré na ñu dëddoo jàmm te cat bañ ko jiitu ci bàmmeel moom bépp jullit bi ne ci suuf est-ce que xam nga ko ndax yaa ma jiitu ci mbir yi yaay doyen mooy procès ki nga xam ne mooy Clédor Sène mooy bu nu euh, assassiné ki nga xam ne mooy euh, maître Babacar Seye boobu si 24 euh, heures le procès bi def dañ ko déglu suba ba xëy fajar ñu soog a joxe verdict bi Babacar loolu Sud FM moom nag mu marqué histoire bi loolu nag si reportage parce que ku ne Sud FM ne euh, procès maître Babacar Seye moo lay wan ne kon li ñu lay wax rek moom yàgg na ci mbir mi mm-hmm. te defe naa loolu nga fàttali loolu defe naa lu coow loolu yaakaaroon ne jamono ya muy ko ña ko doon bàyyi yaakaaroon nañ ne coow loolu du romb mais li ma la waxal sànq rek lu tëgg tas kon moo lay wan ne moom liggéey na ci réew mi loo xam ne daal lu am am solo la bi am na ku ma dégg koo xam ne ca bañ koy door ne benn genre appartement lañ amoon mm-hmm. côté xaw ma salle de vente xaw ma fa lañ luwee woon nee na su bëccëg jotee da jox 2500 dem jëndi 5 añ ñëw teg añ. la ko si defee kon moo lay wan ne ndey kumba loo ne lu ne gëm ko te jàpp ko rek. Mhm. looy def daal def ko te yàlla tax te jàpp ko te gëm ko xam ne yàlla moom ah. lépp moom la de <laughs> waaw beneen bànneex bu neex tamit tam beneen bànneex mu neex moo dalaat ki nga xam ne moom mooy Modou Lo ginnaaw nag bu aawam bi amee doom weer yee nu génn euh, moom bi nga xam ne mooy borom ñaari galoo yi nag ñaareel bi nag euh, joxe naa ko doom bu góor démb fii si benn clinique de la place kon dañ naan macha allah rek Modou xarañ la roi des arènes ah di ko féliciter di féliciter soxna si ñaanal yàlla bébé tamit yàlla defal ko fan wu gudd ak wér ba muy dem bay taxaw ay ju ay wayjuram te ñëpp fekkee ko barke yonent bi sallallahu alayhi ah, nag mooy àddina ñii dañ fiy jóge ñii di ñëw rek yàlla bind noonu daaru duniyaam parce moom moom bu yàggul ñàkk na wayjuram bu góor ñu ko koy jaalaat di ñaan yàlla yërëm ko te xarab aljana mm-hmm. te yàlla defalaat ko loolu kon daal li yal na ko jig teeneen njaboot topp ci te itam muru di ko wax rek man nga sànni ma ñaan ndax ma am deuxième a <laughs> <laughs> <laughs> Babacar si kàddu yoo lay tàggoo di leen jox daje suba incha allah mais balaa boo muy nuyu Astane Géry Khadija Diallo depuis Parcelles ak Italie di nuyu samay doom Maam Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne mooy Grand Fall di nuyu aussi euh, El Hadj Malick Tandine bébé El Hadj Malick Tandine depuis Thiès maa ngi koy nuyu ki nga xam ne mooy Asek Chéri Khoudia Seck depuis Italie nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Baye Fall Damagan depuis États-Unis yaa ngi si biir Jibi Bamba fàttewuma yaa ngi si biir Babacar. waaw nuyu nañ ñëpp Jibi Abdou Yaye Sarr Espagne maa ngi koy nuyu ah borom Géejawaay di nuyu tamit ki nga xam ne nii moom moo di Khady Rose Ndiaye sama alman bi borom Allemagne maa ngi koy bégge bu baax di ko ñaanal jàmm di nuyoo encore une fois rek sama mbokku bowal bowal yi du ma leen mës a fàtte Ndeye kumba Fall ndax gis naa ni ñu ma taxawa waaye taw rawatina waa Sénégal yépp nag maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que daal ñoom Abdoulaye mbay ñoom Habib Ndoye Ndongo Fall ñoom ñëpp Bazoka moom itam sama gayan la maa ngi koy nuyu depuis États-Unis di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñuy suivre ñoom seen tel mbër yi ay fëgala mbër yi yëpp ay infrarouge ñun ñëpp ñu ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm di war souhaiter tamit Boucher happy birthday to doon fête anniversaire am Boucher xam nga ko Ketchup mel na mi doomu ndawi Papa Diouf <laughs> ak Marcel Diagne Boucher borom États-Unis d'Amérique maa ngi lay ñaanal jàmm rim kaa kuti du ma ko fàtte moom tamit di ko nuyu Saliou Khoule borom Zik FM nday kumba xar yi moom ci kàttanu yàlla lu la tëëti bàyyee ko sun borom ndax mooy borom kun fa yàkkun insha allahu rabbi di nga am xar dina am xar yàgg dina am lépp yàlla fekkee na ko non yow moom jëkkër moom jëkkër moom jëkkër moom tëwu la jëkkër moom fi yaa ci des boo bëggee léegi sa guro nga jot ci. yàgg ma Ramos moo capitaine. <laughs> ba suba allah.